asalaamualeykum wa rahmatullah asalaamualeykum wa rahmatullah mercredi 6 janvier 2021 dañuy ñëw ak yéen ci yëglikaay yi suñu làmb la ñuy xëy doore ko yëglikaay bi di suñu lamb tey nag xëtam mu njëkk lëm ci xëy fisal maanaam daal fusion bi nga xam ne boobu ba tey ñu ngi koy coow ci dëkk bi war a dox ci diggante écurie mel ne ki nag Tafa Gueye moom maanaam ña nga xam ne ni daal ñoo de ay problème moom fi mu nekk nii yëgal na leen mbir ya wala boog wax na leen ko mu mel ne ki nag loola moom fi mu nekk nii presque rek léegi mu leer ndax yëglikaay bi xam nañu ne daal Tafa Gueye woote woon na te ba mu wootee bokkoon na ci ñi ko wuyu si Ka Serigne Ndiaye numéro 2 Baara Ndiaye ba ci général ñi ñëpp présenté woon nañu woon ci kanamu Tafa am na ñoo xam ne nag moom ñëwuñu woon maanaam ay absent la woon ca woote a ba nga xam ne nag moom moo sancee Gris Ndakaaru moom mu nga xëy di wax ne na moom daal lemba des daal écrit ya moom wala boog écrit bi nañ ko fas yéene tudde daal mooy Fass Ndakaaru loo ci mën a dégg itam kati moom mu ngay wax ne fi mu nekk nii daal loo ci mën a dégg man mooy man boog man kati man may écrit Ndakaaru maanaam moom mooy fondateur ba dax na daal kati ne kon loolu moom fi mu nekk nii moom lañ te fas yéenee def nag mooy jëm ca liggéey yi donte nag jàpp na ne am na ay ñoo xam nii ci waa écrim wala ay mbërëm d'accorduñ ca loola waaye daal moom jàpp na ne moom mooy écrim ndakaaru te faas ak ndakaaru fi mu nekk nii mbir ma moom day jàll loolu tey sunu làmb xëy tey wax nu ko leneen loo xam ne nii yëglikaay bi ñëw na ci ñu nar koo jàllale wala ñu koy xalaat maanaam daal wàllum écrit wala boog wàllum CRC yi nga xam ne moo ci région yi daal bira seen moom la mu nar mooy Dakar tamit amul CRC am loolu daal yëglikaay bi sunu làmb xëy na tey wax nu ko am na ñoo xam ne ni moom lañu daal d'accordul mooy huis clos amateur yi daal ci sunu lamb xamal nañu ne daal loo ci mën a dégg koo ci dégg micro laaj ko daal lam lay xamal moom mooy lambi huis clos moom bees leen ko wax tey suba waxi noppi ndax nag nekkul loo xam ne ni la ñu bëgg la wala la ñu pare ngir di ko seetaan yëg bi di sunu xëy tey defal ñu boobu gëstu ba tey sunu lamb am na tey koo xam ne xëy na dalal ko ñu koy wax am di fall moom nag mu nga fa nga xam ne nii moom moo dee kaw ca Kaolack nekk président day manaan sa ya nga xam ne ñoo nekk ca Kaolack ñëw na ci lambi Kaolack joo xam ne daal jàpp ay jamono waxaan Dakar Kaolack lañ ciy teg ci wàllum lamb ci ay journée yu neex ak événement ya fa daan am waaye jàpp na ne fi mu nekk ni moom booy xool dëkk bu dellu ginnaaw dëgg dëgg dëgg ci lamb am dina lu fenn fa dul Kaolack boo koy wër daal bul sori boo duggee Kaolack moom di xam ne dellu nañu ginnaaw lool lool ci wàllum la nga xam ne ni moom moo di làmb ba tey am di faal tamit mu nga xëy di xam ne daal jàpp na ne li nga xam ne nii moom la jàppee kumba am ndey wala kumba amul ndey wala boog wote taxas wet mooy stade ya nga xam ne ñoo ca kaw la ne na buñ koy luye football bi ay 60 mille francs lañ leen koy luye maanaam ay fukki junne ak ñaar te bu dee làmb ji ñu deen ko luye 250 mille maanaam juróom moo tax am di jàpp ne li waras am di jàpp na lool waras na cee wax fexe mu dañ ndax nag nekk na mbir moo xam ne ni kumba am ndey la kumba amul ndey te jàpp na ne ndegam football lañ mën a yombale loola lan moo tax làmb ko ñu di leen laaj yenn xaas yu seer yi bu fekkente ne danoo soxla li nga xam ne ni moom moo di esat ba ba tey am di ñëw ni di dànkaa fu mbër yi xamal nañu leen daal fi mu nekk nii mbër mu ci naturel yombatu ci ndax la mu jàpp mooy la nga xam ne ni ñu ngi koy jël ci ay protéines ak itam yu ya nga xam ne ñu ngi koy faral di yëkkateeg yooyu tax na koo ci gis itam mën naa tol nu ko neex de waaye day jàpp ne du ko naturel te doole pire pire day desee nekk fa nga xam ne ni moom moo di ca moom yëglikaay bi ba tey moo xëy daral ko muy wax loola am na loo xam ne tamit jàppoon na ne mënu koo gëm wala mu yaakaar yaakaaroon ko mooy la nga xam ne nii daal moom la Balla Gaye numéro 2 def Yékini maanaam bëre ak moom daan ko moom jàpp na ne daal Yékini fi mu nekk nii moom loo ci mën a dégg yàppar yàqoon na ne keneen mën na koo daan wala boog xalaatu koon Balla daan na ko waanaam daal loolu mooy waxu ka nga xam ne nii moom moo di am di fall yëglikaay bi di sunu làmb xëy tey dalal ko mu ngar daaju wax fa lu yaatoo yaatu ba tey bu nu continuer ci record la ñuy dem écrit bi nga xam ne ni record xëy na tey jàngat ko ci juróomi at yi nga xam ne moom la ñu génne 41 victoire 41 défaite ak ne ni moo di benn niil loolu daal la ñu yëglikaay bi xëy tey xamal ne écrit face def na ko ci juróomi at yi mujj yi maanaam ñeen fukki victoire ak benn ak ñeen fukki défaite ak benn mu mel ni ki nag yëglikaay ba xëy na ko ci xayma na ko ci 49 pour cent de réussite moom sunu lamb leneen loo xam ne ni record ñëw na ci ba tey wax nu ko m ministre Matar Ba mi xam ne war moo yore sport réew mi xam ne ni daal daal moom lañ ko doon di jox mu jóge ci promoteur yi wala wàllum làmb ja mu jëm ci wàllum protocole sanitaire ba daal daa mel ni fi mu nekk nii moom la ca des mooy jël ko nag jébbal ko ki nga xam ne moom moo di njiitum réew ma ngir mu càmbar ko xool nag nu muy def waa lamb ji koo war a xëy ba tey duñu wax lu mel ni kii noonu leneen loo xam ne nii wala feneen foo xam ne dañ fay dem mooy muy fa nga xam ne moo di ca Equivox mu mel kii nag Matar ba moomu moom maanaam démb ànd ak na ka nga moom moo di candidat promoteur fa nga xam ne moo doon ca kër ñoom jibi ama yëkkatib enveloppe jox ko ko ngir nag fas ko yéene jàppale ca fajom ma nga xam ni daal ñu ngi koy xayma boobu ba tey di ko dajaleel te xaas ba tëabat mel ni ki nag Matar ba moom dugal na ca démb la nga xam ne nii moom moo di loxo mbokku internautes yi di leen ñaanal jàmm di ko sàkku ci yéen tey nag ñu ngi ci mercredi 6 janvier 2021 yëglikaay yi suñu làmb tey fa la ñuy xëy mu mel ni ki yëglikaay ba nag comme ni ah, nga xam ne ñu ngi koy wax boobu ba tey diggante Fass ak a leer ndax daal kii di moom ah yëgal na ay problème wala waa écrim mbëri ya xamal leen daal mbir moomu kon fi mu nekk nii moom ci commencé ko lañ jëm ba woote woon na ca mu woote nag ñu ko wuy si bokk na ci Forza numéro 1 Serigne Ndiaye 2 Baara Ndiaye ak général am na ñoo xam ne tamit ñu wu ñoon waaye loo ci mën a dégg daal ah loolu moom daa mel ni fi nekk nii jàpp nañ ne sax la 11 janvier bi nga xam ne ci nekk daal ci weer bi nu ne mi ci lañ fas nag commencé entraînement yi ci diggante ñaari écuries yi nga xam ne léegi dañ ko bëgg a dajale def ko muy benn écurie waaw ñu wax ne loolu nag buñ ci ñëwee wala balaa ñuy kii gën a gis Amadou Kati Diop tamit bu écurie Ndakaaru ma nga ma nga xam ne nag nee na moom écurie Ndakaaru defe naa ne moom mooy moom la te defe naa noonu la demee defe naa moom mooy membre fondateur ba ak ñoom ah, lu leer nar a def la muy mbir moo xam ne nag defe naa mm, ñoom ñoo bokk fuñ ne écurie Fass ak écurie Ndakaaru te bu la neexee sax nga ne écurie Ndakaaru ci écurie Fass la juddoo loolu moom mooy li am parce que Amadou ku ne xam na ne moom moo yore woon Tafa Gueye bi Tafa Gueye di toll dëgg-dëgg ci ay guddeem moo ko doon tàggat bi muy daan yenn jël yu rëy rëy yi yaa ngi dégg ak yeneen mbër yoo xam ne Zallo bi muy daan Yaxya Diop Yékini drapeau chef de l'État su ma jumul 96 wala xaw ma ci at yooyu daal ah moom moo ko yóbbu woon yore woon ko kon defe naa ne moom min na foofu nga xam ne moom mooy Fass muy këram ba mu ca jógee nag la beru ber daaram muy écurie Ndakaaru am fa ñoom Yékini ak yeneen mbër yoo xam ne jaar nañ fa ñoom dem si yàlla Seexu Jël ko yàlla yërëm ñoom Youssou Ndour ak yeneen mbër yoo xam ne yu mag la ñoom Yékini Senior ay Malick Niang ak yeneen yoo xam ne ñëw nat nañ biir écurie Ndakaaru wane fa seen bopp bu baax a baax waaye xëy na nag tey bu ñu dem ba gis ne ah mbooloo mooy doole defe naa ñu ànd def ko itam defe naa du yàq dara ci seen diggante pour man ci sama gis-gis maa ngi dégg donte nag dina ci am mbër yoo xam ne nii tey ay adversaire lañu ci biir war nañu mën a bëri écrit waa écrit face am na ca parce que des fois dañ daan daje ci ay combat xay na daawul bëri mais xale yooy tamit ah ñoom ku ci gis am sa gis-gis jàpp ne loolu yow arrangé wu neexee tamit am nga droit taxu dem ci beneen écrit boo xam ne nii yow da ngay di bëri ak ña nga xam ne nii ñoom ñooy waa face Dakar googu loolu moom defe naa ne ku ne di nga ci libre ku gis ne tamit mbir ma arrangé ne la ah mën nga rester ànd ak ñoom ngeen liggéey parce que loolu defe naa ne tamit lépp lu mën a nekk la ba tey bu ñu continuer ah, maanaam généralisation wàllum ah euh, li nga xam ne moom mooy CRC Dakar nag mu mel ni fi mu nekk nii est-ce que fasuñu fi yéene installé CRC comme niñ ko xamee comme ni ko yeneen raison yi amee loolu defe naa ne bi ki nga xam ne moo jiite làmb jiite Bira Sène mu nga cay xalaat loolu yëglikaay bi ñëw na wax nu ko mu mel ni a ah, loolu moom war na mën a nekk parce que région yëpp am nañ CRC kon Dakar war na ko mën a am te du bokk ak li nga xam ne ni moom mooy comité bu mag bi nga xam ne moom mooy lif làmb réew mi yëpp loolu defe naa ne xalaat la boo xam ne buñ ci xalaatee waxtaan ci mën na am bu juddoo mu nekk njariñ pour làmb parce pour man luy gën a avancer làmb rek war nañ ci di waxtaan di ci xalaat daal ba tey bu ñu continuer a ah, huis bi moom daa mel ni xam parce que keroog defoon naa ci benn micro trottoir dem asalem dem tilleen dem kolobaan waaye ku ci dëkk micro moom waxi huis clos boo ko ko waxee danaa lool moom xalaatee su ko ci làmb kon amateur yi moom d'accorduñ ci huis clos lu mën a xew mësuñu cee d'accord sunu làmb itam defaat na lu mel noonu tey laaj nañ leen ñoom nañ amateur yépp kenn àndu ci ci wàllum huis lool moom mooy li ñëw tey ci yëglikaay bi am di faal moom xëy na ngar daajoo noog yëglikaay bi am di faal moom mooy président des managers ne ca Kaolack moom nag la ko naqari daal wax na ko ci làmbi Kaolack na mu doxewoon ak léegi ni mu daanoo ak itam la nga xam ne moom la ñu luye stade ba football ba di soixante mille te bu dee làmb ñu luye leen ko deux cent cinquante mu mel ni ki loolu wate taxaswet la loolu nag moom dama ko bu dee ci côté nag euh, Kaolack ni mu nekkoon nekkoon deuxième ci euh, maanaam ci Sénégal ci wàllum lam topp ci Dakar bu wàccee itam dama naan xay na tey ñay yore làmb ji administrativement ak ña nga xam ne ñoom ñooy produire est-ce que du mbir ma du foofa ñoom ñooy toogaat waxtaan xool nu ñuy def ba mbir yi jógaat waaye bu dee location stade moom defe naa loolu am Kaolack mu am Dakar rek parce que boo xoolee Demba Diop li ñu ko doon loué promoteur yi seer na trop trop trop te bu fa football ba soxlawaan maanaam dañ leen koy defal na mu yombee te defe naa loolu warta mën a ne parce que ñoom ñëpp ci réew mi la ñu bokk ñi koy def ñi koy pratiquer te li ci gën a doy waar mooy làmb ji moom ñoo ko moom sunu sport national la football bi moom lu mën a xew dañ koo jëggaani kon defe naa waru ñoo mën a loué stade Eh, football soixante mille francs luyee ko làmb deux cent cinquante mille te defe naa loolu moom kumbaam ndey kumbaamul ndey la wala wate taxas wet te yooyu nag man tey maa ngi interpellé monsieur le ministre Matar Ba loolu war nga cee xolaat bu baax baax a baax parce que loolu man yaakaar naa ne xel nanguwu ko waaw xel nanguwu ko ba ci arène nationale bii loo ci mën a dégg li ñu koy luyee promoteurs yi seer na parce que su ma jumulee un million la yaakaar naa ne yaa ngi dégg sécurité cinq cent mille ak location sa arène bi cinq fois dina am combat yoo ay niveau tolluwuñ ay niveau ndax ku lu mel ni Balla Gaye numéro 2 Bombardier ah tolloowul ak li nga xam ne nii moom moo di Mama Lamine ak Garga numéro 2 tolloowuñu wala mu tolloog Abdou Diouf Gris 2 mu toñ tolloog Fils de Balla général Malick combat yi tolloowul ay niveau moo tax naal nañ xoolaat affaire yi bu baax a baax ndax am na yoo xam ne nii moom ah bu yàggee la muy niru day am leneen lu mu niru te yëpp mën na ñàkk parce réew ñu ñëpp ñoo na ci tey wala bokk waaw cinq ans maa ngi jéeglu juróomet yu mujj yi 41 victoire 41 défaite benn nii xam naa dañu bëggoon def 41 victoire 41 défaite def ñaari yoon 41 victoire mais njuumte day am des fois ci liggéey bi ñu leen ciy jéggal muy Abou Ndour ak waa record yëpp groupe Futurs Médias bi yëpp ñu leen di ziar waaw mel ni ko nekk face daal boo xoolee jëmul ci nga dikkul mbay laar waaw fañ taxaw lañ taxaw 41 victoire 41 défaite benn ah, na Ah, buñ ci jógee réussite dina am comme niñ ko xamee monsieur Matar Ba ah ne nañ fi mu nekk nii daal li mu fas yéene nag mooy document euh, protocole sanitaire bi daal la fas yéene présenté président de la république monsieur Macky Sall loolu tamit ñuy ñaan yàlla rek ah décision yi ñu fay jël mu nekk décision yoo xam ne nii dina xaw a méngoog li nga xam ne nii moom mooy niñ ko xalaate waaye tamit i faut ñu nangu leen rek corona bi ak ni mu demee nii ba tax tey couvre fa ñu décrété waat ko fas yéene tey ci à partir de vingt yaakaar naa loolu nag su amee defe naa ne kon lamb ji ak lu mën a xew moom nañ na mu daan doxee du ñu mën a doxee ci wàllum diggoog yooyu moom parce que yooyu yëpp ay cause la yoo xam ne ni mooy loolu waaye liñ ci li li ñuy wax autorité yi rek marché yi tamit defe naa ne bu ñu téye làmb ji rek war nañu xool marché yi ak lu mu te xew defe naa nag président lu ci mën a doon moom mi jiite réew mi lépp xam na naka looy koy doxee moo ñi mu collaboranteel ci wàllum santé ak wàllum sécurité ba mbir yi ku ci ne di ci gis sa bopp te kenn du ci am lu naqar waaye nag lu ne kët lu ne jonn moo koy faj waaye lamb ji itam comme jukki nañu football bi ñuy football volleyball ba handball ba ñëpp ngay def seen i euh, seen i compétition war nañ ñoo jukki tamit monsieur le président pour ñun itam ñu commencé def ñu ay mbir parce que bii seetaan nañ benn plateau bu neex ci bantamba boo xam ne ña fa toogoon di ay borom xam-xam andi nañ fa xalaat moo xam suñu papa Gaston Mbengue la di koo xam ne tey icône la yam rawat na ci wàllum promoteur Issa Ndiaye ci côté communication ak marketing defe naa ne tey bu ñu ko ko dénkee ci seen seen xam-xamam moo tax suñu papa Bekaay kenn du ko présenté muy plateau bu amoon solo Abdou Aziz Ndiaye tamit defe naa ne li mu def ci lamb defe naa tey nit dootu ko fàtte ba tey mu continuer jàppale lamb buzz nekk koo xam ne tamit pay loolu la yàlla dogal ñun ñu dajee waxtaan ci plateau bu xam ne Modou Mbaye ko a a avancer jëm ca kanam xulle di di nuyu ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi ñuy suivre ak fu ñu mën a ne si àddina rek di leen ñaanal jàmm di ko sàkku ci yéen waa di wax ne que daal yàlla na jàmm yàgg Sénégal waa di euh, waxaat rek que ni réew mi moom réewum jàmm la yàlla na yàlla yokku jàmm ji taaf ñu si barke mag ñi yàggal leen fi wéral leen di kontaan ci bu baax a baax xulle di bëgg ñëpp